ay gi neex na Mbàkke Seex Fallu aouzu billahi samiihil aliim min sharri shaytaani rajiim wasalaatu wa mawlaana muhammadinil makiin wa ala wa ashaabihi xuril mayaamiin wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ihsaanin ilaa yawmi diin mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ñuy bàyyi ci seen télévision Bichri TV ñoo ngi leen di nuyu nuyu lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd yu ñu nekk muy weeru rajab rajabul fard di weer woo xam ne daa am wàccuwaay bu rëy rëy am xew-xew yu rëy rëy yu ci xew yoo xam ne umpul kenn jullit bu ne xam na ko murit bu ne it xam na ko Euh, di njëkkee ci nuyoo bi ziar bi Cheikh Sidi Mokhtar ataalallahu baqaahu wa ayyada di ñaan yàlla guddal fanam ba lépp lu mu yéenee liggéeyal Serigne Touba mu àggale ko ci gën nga euh, tey ñu amoon jotaay boo xam ne ñu ngi koy seq ak sëñ Mouhamadou Bassirou Touré mi nga xam ne euh, mën nañ ñaxaan yu naa ni taarif ku ñëpp xam la ci ni muy tasaaree xam-xam rawatina ak njàngaleem Serigne Touba radiyallahu taala anhu rawatina rawatina ak eh, mbindum Serigne Touba radiyallahu taala anhu eh, di soxna Tahiratu moom Serigne Abdoul Ahad radiyallahu taala eh, nekk koo xam ne niñ ko waxee rek saa ne mi ngi ci noonu li nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyi woon muy jàng jàngale ak ak ak di yare ak di tasaare xam-xam kon ñu fas yéene seq moom jotaay boo xam ne ñu koy seq ak moom mu aju ci al isra wal mi'raj muy riñaan ki nga xam ne moom la yonent bi sallallahu taala wa sallam riñaanoon ci weeru rajab bi ñu nekk euh, jotaay bi kon loolu mooy euh, mën nañ ñi thème bi ci ci anam gu yaatu bu ko defee nag dana am ci ay bànqaas ay laaj yoo xam ne danañ ko danañ ko ci danañ ko ko laaj euh, waaye thème bi ci anam gu ci tënk rek mooy al israa wal mi'raaj muy riñaan gi ko suñ borom riñaanoon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weer yu ñu nekk bi wax rajab ak lim dëppoo feeñu jamono fe feeñu jamono ak Cheikh Mamadou Fadal euh, kon ci loolu la jëm bu ko defee ñu jox sëñ Basiiru rek mu mu nuyoo ñu tàbbi ci ci waxtaan wi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajmahiin rab rabbi israh li sadri wa wax loolu amri wahlul uqdatan min lisaani xaw qawli ñoo ngi tàmbali suñ kàddu ci sant suñ borom mi borom mi defi tey julli di sëlmal ci ki gën a tedd ci ñi yàlla yónni tey ñaan julli googu ak sëlmal googu law ba àgg ci ay ñoñam ak i sahabaam mbooleem seen ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbooleem mbokk yi ñu seetaan nu yóbbu lislaam te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di la nuyu sëriñ Saliou Guèye di am mbégte lool fa yéene seq ak yow ak jataay bi ci Mafatihul Bichri TV. waa jërëjëf Cheikh Ahmadou Bachir ci ubbite gu am solo googu di ñaan rek ni ko sëriñ bi daan waxee mu nekk mubaarakul ibtidaa may munal intihaa Euh, laaj bu njëkk tomb bu njëkk bi rek mooy dañuy laaj lan mooy al isra wal mi'raj al isra wal mi'raj bu ñu ko waxee la euh, taarif bi boo ñu ko mënoon a ñu ko mënoon a jàngal ja jàngatal xamleel ñu ko ngir ñuy bàyyi xel ñu xam lan mooy al isra wal mi'raj. jërëjëf euh, sëriñ Saliou ci laaj boobu te mooy al isra wal mi'raj mooy lan dafay laaj bu laaj bu yàlla ndax mbir bala nga cee xuus. li ci wax war ngaa xamle lan mooy mbir moomu euh, al isra mihraj ñaari mbir la isra gi mooy yont bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi mu rañaane jóge màkka ci masjidul haram ba agsi ci baytil maqdis loolu mooy isra bi bu ko defee la dalee baytil maqdis yéeg ci asamaan su njëkk ba ci juróom-ñaareelu asamaan ba ci sidratul muntaha ba fa fu soob suñu borom loolu mooy almihraaj lu ci nag alxuraan tudd na ko bu dee al isra wal mihraaj alxuraan tudd na ko ci suratul isra bismillahi rahmaani rahim subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa lazi baarakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basiru loolu mooy al isra mihraaj tudd na ko alxuraan tudd na ko bu dee almihraaj nag alxuraan tudd ko ci suratu naj mi ci euh, fu bare bare ci suratu naj mi wan naj mi isa xawee maa dala saxe umaa xawee umaa yentu xawee soo mënatu fa sawee waxoo bil fuq bil ufuq la su ma danaa fa tajalee fa kaana xaaba xaw sëy ne aw àddine fa awxee ilaa xab ma awxee maa kasabal fo aadu maaru afot maaru na xalaa maa yeree wala xar aho nasat uxra xinde sa muntaha xindaha jannatul mahwa is yax sa sirt maa yaxsee ba kon al isra mooy li dalee ci makka ba baytul maqdis loolu mooy al isra mooy rañaan ma ihraaj mihraaj nag euh, mooy bi mu jugee baytul maqdis nag yéeg nag jëm ci suñu boroom waaye nag boroom xam-xam yi werante nañ foofu ndax rañaan gi ci ruuxam la woon ak euh, wala ci jëmmam la woon loolu indi nañ ci ñetti wax incha allah danañ ko leeral bu ñu jël siwaate incha allah ok jërëjëf euh, sëriñ bi ci tontu lu matale lool tam solo lool kon nga xam ne buñ buñ seetee kon day mel ni kon ni nga ko waxee al isra wal mi'raj du ci nekk rek alxuraan àdduna ci kon ni nga ko waxee noonu nga xam ni benn bi ni ko suñ borom waxee ci njëlbeenug suratul isra subhaana allazi asra bi abdihi laylan kon nga xam ne kon riñaan gi moo tàmbalee masjidul haram subhaana allazi asra bi abdihi Euh, al mi'raaj itam mooy ginnaaw bi mu jógee masjid aqsa dem ba ca fa sof suñ borom xaaba xaw seen awadd ne euh, kon loolu leer na nañ kon euh, laaj bi tom tom bi ci topp rek mm, nga xam ne moo lañ doon sàkkoo leerlu mooy al isra wal mi'raaj buñ ko waxee taarix bi muy ci ci ban at ci la ko yonent bi sallallahu alayhi ci la amee ci dundu yonent bi sallallahu alayhi kon laaj boobu mooy laaj bi ci topp rek nga leeral nga baaxee ko ñi ñi ñiy topp jotaay Mm, xam nga mm, siira moom boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ci ñàkk ci dëppoo wax nañ ne lu dul muhammadu muhammad la tudd baayam tudd abdullah ndeyam tudd amina wuti nañ ci loolu yi dafa feeñ ci ban at la rañaan am nañu wax ne euh, rañaan mi kat mi ngi am at lu njëkk gàddaay gi waaye boo demee ci ku ñu wax as zuhri moom nee na rañaan bi mi ngi am ginnaaw ba yónnee yonent bi ba am at ak genn wàll kon gis nga ñaari at ñaari wax mi ngi ci am na ñeneen ñu ne rañaan bi kat am na juróomi at njëkk gàddaay bi kon ñetti version ñëw nañ ci waaye ala kulli xaal lu ci mën am rek rañaan bi moom lu njëkk gàddaay gi la woon am nañu wax ne benn at njëkk gàddaay gi ñii ne juróomi at njëkk gàddaay gi ñii ne sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko wax yoo rek jibril fekk ko ci xaare Hira rek ba am at ak genn wàll ca la rañaan mi amee woon maa ngi wax sànq ne borom xam-xam dañoo wute ci rañaan mi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ruuxam dong moo rañaanan am jëmmam dong moo rañaanan ak wala ñoom ñooñu ñoom ñetti ñoo ñoo àndoon jëmm ji ak ruuji loolu nag dañ ci warante ci ñetti xaaj ñetti wax am na benn kuréel boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ruuxam moom la rañaane te nag ñu ne ruuxu ñu ne loolu gént la woon waaye nag dëppoo nañ ci ne gént ab yonent dëgg la wax la version boobu Muawiya ci la jëm ak lañ nettali ci Aysa moo xam ne man kat yonent bi sallallahu ba muy rañaan maa ngi doon làmb yaramam di ko daj donte loolu nag euh, euh, ak taxaw war taxaw seetlu war na ci am ndax booba xaayisa rañaan bi muy am booba xaayisa ba moytul juróom-ñetti at lay am bu fekkee eh, mooy at bi njëkk ci gaddaay bi ak li anas wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu koy nett dane moom mi ngi nelaw nekk ci masjidul haram waxaale fi aaxiriha fastayxasu wa fastayxastu wa anna bil masjidil haram loolu la ñoom kon dañoo wax ne rañaan mi gént la woon donte nangoo nañ ne gént gént nag dëgg la ñaareelu kuréel bi nag te loolu mooy muxsamu salaf wal muslimina li ëpp ci mag ñu baax ñi ak jullit ñi ñoom dañoo d'accord na annahu euh, ila annahu israun bil jasadi fil yaxsati ñoom dañ ne rejaan googu nag moom yaram la euh, ak euh, ci ci ak yeewu lii mooy lu wér wala mooy li gën a wér ci liñ jële ci ñi ëpp ci borom xam yi ak jullit ñi mooy waxi Abdullahi ibnu Abbas mooy waxi Jaabir mooy waxi Anas mooy waxi Xusayfa mooy waxar mooy waxe Omar mooy waxi Abi Hurayra ak Malik ibnu Saxaata ak Abi xamatal al Badriyu ak ibnu Masud ak Dahaak ak Saïd ibnu Jubayri ak Xataarita ak ibnu Musayab ak ibnu Sahab ak ibnu Saydin ak Xasan ak Ibrahima ak Masruux ak Mujahid ak Ikramata ak ibnu Jarih ba tey mooy dalilu xawlu Aïsa wala tamit mooy waxu ibnu Hanbal ak mbooloo mu bare bare ci jullit yi mooy waxit ji nga xam ne mu ëpp mutaaxiroon yu mujj yi ci fuqahaa yi ñoom ñëpp seen wax loolu la ak muhaddisiin yi ak mutakallimoon yi ak mufassiroon yi te sëñ sax moom la la wax asra bil jismi jahra bil iftiraa yi yonent bi sallallaahu alayhi wa bi muy di yaramam moo dem ci lu bëra ba tey beneen wax ji nag mooy am nañu wax ne rajaan mi yeex sasan la woon tàmbalee ko masjidul xaraam ba ci baytul maxadis loolu moo nekkoon ci jëmm waaye ñun nag la tàmbalee foofa ba ci asamaan si foofu moom itam eh, ci ruu la woon ñu tegtaloo ci suñ borom li mu wax ne subhaanal asra bi habbi leneen mina masjid xaram ba ba ba mu àgg nga xam ne ñoom dafa def xayatul isra ji rek muy masjidul aqsa kon gis nga ñetti wax ñëw na ci waaye nag Sëriñ Tuubaa moom ba mu ca wax moom mooy asra bil jismi jëxëran bil iftra kon sëñ saaliw rajaan gi wax nañu mi ngi am at njëkk gàddaay gi ñii ne mi ngi am juróomi at njëkk gàddaay gi ñiine ne mi ngi am bi biñ ko wax yoo rek def ko yonantu suñu borom wàcc tam iqra bismi rabbika lasi xalaqa xalaqa insa min xalaqin ba ni mu agsee euh, ba ni mu amee at ak genn wàll kon loolu lañ doon tontu ci laaj boobu. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Basir ci euh, tontu bu matale boobu te solo lool. nga xam ne leeral nga ñu ci wuute yi nga xam ne mu baaxoo am loolu lu baaxoo am la ci taarix histoire moom ku ne xam ne ay ay wuute la baaxoo euh, waaye leeral nga ñu itam wax ji gën a lëng ndax ay wax mën naa bari waaye wax ji gën a yanu maanaa te gën a tegtalu te gën a dëgër wax yi nga xam ne aktharul muslimin wa aktharu salaf salihin xat zahabu bi ñu ci bëri bëri ci lañ tegtaloo euh, ak itam Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala bi nga xam ne ki kii kii bi mu ci eh, eh, gis-gis bi mu ci am te mooy asra bil gis mi jëxra muy yonent bi riñaan riñaan na ta ci yaramam jëxran la ko def te loolu mooy wax ji gën a dëgër te Aysa ak Xataada ak ñooñu nga ci tudd ñëpp ñu dëgëral ko kon jërëjëf Cheikh na Basir ci tontu boobu ba tey tont eh, laaj bu ñetteel bi muy dañuy laaj xew-xew ak xew-xew yi nga xam ne moo xew ci yonent bi riñaanee xew-xew ya fa xew xawaaris ak wax ak waqaay yi nga xam ne moo fa xew ci bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam riñaane ca boromam. jërëjëf sëñ Saliou ci laaj boobu xam naa ne laaj boobu dana naqare tontu ba mu jeex ndax xew-xew ya dafa bari waaye danañ ca tuddut yenn lu njëkk loolu jëlee nañ ci az-Zuhri yu mu jëlee ci Urwa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu riñaane ba xëy suba daf ko xibaar nit ñi lépp ci nit ñi dañoo murtat loolu xajutoon seen bopp mu doon fitna bu mag yenn yëfër yi profitoo ci loolu dem ci Ababacar ne Ababacar daal ñu sug xel la buñ ko waxee lii waayam ji wax nag moom tey dana xam ne waayam ji doy na waar ñu dem ne ko kat sa waay ji sa àndoo bi sa xarit bi kat sa yonent bi kat neen daf dañ ko royaane bi mu jóge Màkka dem ba baytil Maxadis jóge fa dem ba asamaan te nag xëy si ba bañ laataa xëy delsi na waaw ndax loolu danga ko gëm da ko dëggal mooy leen bu ko waxee rek de dëgg la ndax maa ngi koy dëggal ci lu gën a sori loolu keroog lañ ko tuddee as siddiq tur woowu la ko am am na benn waay sax ci yëfër yi dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko danga nga da reñaan mu ne ko waaw mu ne ko foo dem dem nga ba asamaan mu ne ko waaw mu ne ko jugal taxaw yonent bi jóg taxaw téye ñaar tànkam mu ne ko yëkkatil benn tànk bi yonent bi yëkkatil benn tànk bi mu ne ko yëkkatil bi ci des mu ne ko su ma su ma yëkkatee bi ci des damay daanu mu ne ko ah ak lii nag nga bëgg a wax ne dem nga ba ci asamaan dem nga ma ci juróom-ñaari asamaan ba wees foofu loolu lu mën a nekkee kon yu mel nii amoon na nga xam ne événement bu rëy la woon indi woon na rëng-rëng waaye lu si mën a xew rek ñoom yëfar yi ñëw nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko testé di ko laaj ay mbir yu nekk baytul maqdis di ko laaj néeg ba nu mel ak jàkka jàkka yonent bi di xibaar luñ ko laaj rek moo wax leen na mel yonent bi mosu faa dem waaye ñoom daanañ dem ngir seeni commerce daan nañ ko laaj sax seeni njëg yoo xam ne dañoo demoon saam di ko laaj ndax daje nga ak ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa ne romb naa leen ñu ngi ci place bu ñuy wax rawhan dafa am seen génn giléem sax gu leen réer moom la ñuy seet daal sax bàyyi woon nañ benn euh, ndab lu def ndox sax naan naa ci ma tegaat ko buñ ñu agsee na ngeen leen laaj laaj loolu ndax ndop li ngeen doxoon ndox ndax bu ngeen dikkee fe fekkaat nañ fi fekkaat ngeen fi ndox waa màkk jàpp loolu ba njëgg ba ñëwee ñu laaj leen xibaar yi yëpp ñu dëggal ko ni ko yent bi wax waxoon sallallahu alayhi wa sallam seen gileem réeroon nañ tegoon nañ ndox ci ndab bañ agsiwaatee fekkuñu fi laaj nañ ko sax kañ lay ñëw ngi njëgg mi kañ lay ñëw lu ci ne yont bi sallallahu alayhi wa sallam xibaar leen ko bi mu agsee baytil maqdis nag fa la jiite yont bi salla yonent yi yàlla na yàlla dolli ak xéewal ak mucc ci ñoom foofa nag la jàlle alburax nag la ko jibril indil alburaax la la war bi mu agsee nag baytul maqdis ba jiitu fa yonent bi yonent yi la njëkk yéeg nag ba àgg ci asamaan su njëkk foofu la la yéeg sunu maam aadama foofa la gis ay ruu yu weex ak ay ruu yu ñuul ñu seq maam aadama mu laaj ñu ne ko ruu yu weex yi mooy ñi nar a texe tey sët moom aadama ruu yu ñuul yi mooy ñi nar a texe di ci xeetu ci sëtu moom aadama yi mu gis fa jigéen ju màggat lool walla góor gu màggat lool yor jigéen ju kumuru ñu koy sukkal na naa ko kaay yant bi daw naan ko kaay muy daw jibril piis ko ne boo wuyu sa xeet wi du raw dawal bu baax xaddina la ak iblis góor gu màggat ga sayxul musanatul mooy iblis jigéen yu ko munu ji mooy àddina di kowoo yant bi daw jibril piis ko ne ko dawal mu yéeg ba ci asamaan ñaareel sax fa fekk Xiisa ak Yaxya ñoom ñaar ñoo naroo ñoo naroo mbir ñaari yant lañ te kenn ku ci ni ñoom bàyyiwu fi sax doom jotoo denc soxna ñoom nag nañ dikkee àddina dafa dafa xar baaxe damay bañ a guddal moo tax dugguma ci mu ne keroog la gis aw jigéen ñuy may ci ñuy may ci àddina ji ñook seen wenn ya lañ boole takk ñuy xandaalu ak góor ñoo xam ñoom itam seen geen yi lañ takk ñuy xandaalo ñooñu mooy ñi daan mooy yàlla fii ci àdduna noonu la ñu di bëggale jigéen dañoo takk seen wenn yi jusal leen suuf góor ñi ñu takk seen geen yi jusal leen suuf ñetteelu asamaan si moom itam falarom bu ab kuréel ñu yor ñàpp ñu yor yàpp wu ñorul ñoo ngi gis yàpp wu ñor ñu bàyyi ko fa dem ci reer ci medd mu kenn toggul mu laaj Jibril ne ko waaw ñii lu seen mbir ak ñi ñoñan mu ne ko ñii nga gis yàpp wu ñor xob mu nekk ne ñu bàyyi ko fa dem di jëfandikoo yàpp wu medd mooy gaa yi nga xam ne dañoo yawar dañoo yor jabar ba noppi bàyyi ko fa di wuti lu araam ñooñu ñooy seen misaal ci asamaanu ñenteel si fa gis Jibril fa la gis Idris yonent yàlla Idris mu gis ab kuréel buy wanni xal muy lakk seen butit ya ñuy yuuxu mu laaj ko Jibril mu ne ko mooy gaa yi lekk ribaa di fab xalal ci jirim tey tooñ ñoom la yàlla mbugalee foofu ci asamaanu ñeenteel si ñuy lakk ay ñuy lekk ay xal muy lakk seen butit ya ca beneen riwaaya mu ne mu gis fa ñoo xam ne nii seen biir ya ay jiit ak i jaan ñoo fa nekk di leen màtt ci seen biir mu laaj sun boroom ñi ñan la mu ne ko ñii mooy ñu doon lekk riba ci juróom-ñaareelu asamaan juróom juróomeel asamaan fa la romb Haaruna mu fekk fa nag ab kuréel bu yàpp seen yaram ñuy suusa seen tuñ ya ak seen gët ya seen tuñ ya lañ yor si so di ko dagg di ko lekk ak seen gëd ya mu laaj Jibril mu ne ko ñoom itam danoo am bàkkaar yi ñu ci jamono ba tey mu weesu leen fa dem ca juróom-meelu juróom-benn asamaan sa fa la gisee ñeenti dex dex yooyu nga xam ni bii sàngara la. bii soow la ba ni ñeent doxee jeexee waaye ñeent dex yëpp nag seen balawaay mu ngi ci biir ajana di génne ci miimuk bismillahi rahmaani rahimi ak hauk allahu gi ak miimuk rahmaani gi ak miimuk rahimi gi xese bi dafa gudd ak waxtu yi moo tax ma gàttale ko noonu fa la Musaa nekk mu ñëw nag ci juróom-ñaari asmaan sa fa la fekk yontu yàlla Ibrahima fekk fa ay malaaka yu taxaw di jaamu yàlla duñ sujjóot malaaka yu sujjóot di jaamu yàlla rek duñ taxaw mu fala baytul mahmur nekk maam Ibrahima wéeru ci baytul mahmur baytul mahmur ñu ne yaakaar naa ñu bari bari dégg nañu ko dégg ay mbiram kon rañaan bi mi ngi noonu foofa nag la yéeg nag àgg ci sëritu muntaa jibril di ko gunge ba mujj jibril ne ko yow su yow yontu yàlla bi demal mu ne ko man jibril su ma weesoo fii lax taraxtu su ma weesoo fii rek danaa seey nekk doom yow nag demal ba ba ba àgg ba ba wëyee yow da nga wax nañ ne foofu yont bi xaw na faa wéet ba suñ borom la ko kàddu Ababacar ngir mu di ko wétali ba nim àggee ci suñu borom ba euh, fa kaana xaaba xaw say ni aw àdduna ak la ci am yëpp ba ni ko suñ borom joxee ju julli yi mu nekkoon juróom fukki julli mu wàcc ba ci juróom benn asamaan Moussa laaj ko ko loo suñu borom jox mu ne ko jox dama juróom fukki julli mu ne ko maala mujj àddina saw xeet at nañ loolu dellul mu dellu suñu borom wàññi ko di ko wàññi di ko wàññi ba mu doon juróomi julli Moussa mu dellusiwaat ci musaa Moussa ne ko dellul sa borom sa xeet attunañ loolo mu ne na ruus naa delloo ci sunu borom Cheikh Mahamadou Fadil waxoon ne nag juróomi julli yooyu ku ko julli ñu fulal la ko ba muy juróom fukki julli kon yooyu yëpp xew na ci e, keroog rajaan ba gis na fa ay kimtaan gis na fa ay xar baax yéeme yoo xam ni mu ne fu ko tuddaale ndax gàttaayu waxtu bi kon loolu rek lañuy tontu ci xew-xew yi nga xam ne amoon na keroog ca rayaan ma gis na fa ay kéemtaan gis na fa ay xar baax gis na fa ay mbóot suñ borom nit la mu ko fa jox bari na hmm, faatiha ca la ko fa joxe ak mujjantalu surtu ra te mooy am na rasul ma ont ilih mi rabbi yi ak it ca la ko joxe képp koo xam ne saw xeet faatu na te bokkaaliwul ak yàlla suñ borom mën na koo jéggal kon événement bu rëy la xew-xew bu rëy la euh, gis na fa ay mbóot yoo xam ni sëñ Tuubaa nee na ba ko sut borom wàcce woon ci montagne montagne wa euh, toj gis na loo xam ni malaaka mosu koo gis du malaaka mu jege du euh, yonent bu jege ci ay xar baax ak ay kimtaan kon al isra wal mihraj mi ngi noonu xew-xew yi ci am yu bare bare la mënu su ko wax buñ ko doon wax mën nañ ci fanaan waaye nag ñu tudd ci loolu tegtaloo ca yu ñu tuddul sëñ Saliou. Euh, jërëjëf jërëjëf sëriñ bi ci tontu lu matériel loolu jërëjëf Cheikh Amadou Bassir euh, kon leeral nga ñu lu bare bari li xew ci euh, al isra wal muy étape bi nga xam ne yonent bi sallallahu na fa ak it la borom wan ci al ghaybiyat ci ay kumpa yoo xam ne janoo nga ak moom nga xam ni léeg-léeg sax kon nga xam ne al isra wal mi'raj buñ ko jàngatee dañuy gis ni yonent bi dafa mel ni. jibril la ko doon jàngal beneen xam-xam buy xam-xamu zahir waaye al isra al mi'raj suñu borom copp moo ko doon jàngal xam-xamu batin moo jibril alayhi salaatu wasalaam ndax ku ne xam ne ni ñoom ñaaraan doon ni ko sëñ bi waxee sural amini ma al amini fawqa al muy yonent bi ak jibril ak al buraq nga xam ni léeg-léeg yi nga xam ne dañ koy nettali buñ àggee ba jaar ba buñ àgsee ci barab lu yonent bi gis lu ko jaaxal danaan jibril lii la na bu ko defee yonent jibril ni ko lii kat nangam la wala lii kat bu ëllëgee ci saw xeet nangam lañ ci saw xeet ñay def nangam ci saw xeet moo xam loola ah, yenn afaal mahmuda la moo xam loola yenn afaal al mazmuma la yii ci jëf yu baax yoo xam ne ah, ñi doon jëf lu baax ñoo koy ñoo koy amee yii itam di di jëf yu safaan di mbir yu ñaaw yoo xam ne ñi doon jëf safaan ñoo koy amee kon ni nga waxoon ci ñi nga xam ni dañoo yoroon yoroon i soxna ba noppi di di moy muy ñi nga xam ne dañoo gis yàpp wu teey bàyyi ko di lekk yàpp wu yàpp yàpp yàpp wu bon ak ni ko misaale ci ñi doon ñi doon ñi mooy yàlla ci jigéen ñi ak góor ñi ak ni nga ko leerale itam yón ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi bi mu ñëwee ni ko yonent yi ñëpp doon doon doon gàttandoo doon ko warmaal ni loolu it bu ñu seetee Sëñ Tuubaa da ko da koy junj junj na ko ci ci ci mbindam kon ni ko waxee ci Jazbul Xuluub euh, waxtaramu wa qaddamu wa karramu wastaslamu tawaaduan wa azamu li qadrihi almuxtarami tawaadahu is arafu rutbatahu wa sarrafu liqaahu waxtarafu bilfadli waltaqaddumi wabtadaru bilmarxabi wa chahli wa taaddubi wal bishri wa taqarrubi li rabbihi almuqaddimi kon ñi ngi sant baax sëñ Basiru ci tontu yu matale yu am solo yooyu ñi koy ñiy topp jotaay bi dana leer nañ ñi ci ñoom kon euh, laaj bu ñeenteel bi rek mooy al isra wal mi'raj fi kitaabaati Cheikh al Xadim riñaan gi ak ni ni ci sëriñ Touba Rêves de bind ak lim ci wax ci am ci ay mbindam te lu bare bare la loo xam ne xam naa du neex matale waaye dañ dañuy ci tënkal yenn ci yi ni sëñ bi ju junjaar Israël Mi'raaj ci ay mbindam. am na lu ma fàtte woon sax ci xew-xew yi hmm, mën naa ko tuddaale soo ko tontu laaj boobu hmm, gis na fa jigéen ju taaru moom itam tuwaalitu di ko taaral loxo hmm, yéen tamit geesu ko jiwil ne ko àdduna la. soo taxawoon ak moom rek saw xeet danañ tànn àdduna mm, jox nañ ko fa tamit ñaari ndab benn bi def soow benn bi def sàngara ne ko tànn ci bu la neex nga naan yonent bi sala sama tànn meew mi naan ko jibril na ko bi nga tànnee meew mi de moo gën boo tànnoon sàngara bi saw xeet kon danañ gedd lislaam waaye ba tey euh, ci asamaanu àdduna si yii muy asamaan su njëkk ca fi mu gisoon moom aadama gis na fa ginaar goo xam dafa yer dunq weex tàll ka asad di bayaadan maar ay tumis loo weexaayam boobu mosumaa gis lu mel ne moom ginaar ga lii lay wax subhaanal malikul qudusul kabirul mutaali laa ilaha illallah xayul xayum saa yu waxee rek ginaar yii fii ci àdduna ñoom itam daal di sàpp moo tax boo demee ci masaarikul jinaan sëñ Tuubaa nee na ginaar fa muy sabee ba fa muy daanoo loo fi ñaan mu nangu ndax sabam googu nekkee dafa communiqué ak malaaka mi ak euh, ginaar gi nekk ci asmaanu adduna ji tey tudd yàlla naan subhaanal malikul quddoosul kabiru mutahhar yi laa ilaha illallah bi mu agsee ci asamaanu juróom-ñaareel tamit fala fekk euh, sunu Ibrahima hinda baabil janati ci buntu àjjana am aw nit ñu toog wër ko seen xar kanam yi weex xam naa mooy ñu nara taxe mu wéeru ci ab néeg néeg boobu mooy bay baytul maxamoor bis bu jot juróom-ñaar fukki malaaka mm, danañ fa dugg te duñ dellusiwaat bu dee li malaaj nag ci Sëriñ Tubaa am mbindam ci al Israa wal dafa bari mu ne fi ko tudd tudd na ko ci jas tudd na ko ci mawaahibu mu xadamaati am na lu ci tudd miimi yi am na lu ci tudd feneen sax am na lu fi tudd incha allah lu leen ñuy tudd ci tuuti bu dee ci ba euh, mawaahibu akrim bi rabbi asra bi hubbi laylan li bi mahal baraay tereeral borom bi nga xam ne moo rañaane ab mu guddi ngir jegal ko xat baata yasri min baxdi tuxri mu diimu bisri fil anbiyaay ma nga fanaan di rañaan ginnaaw bañ ko laabalee mooy jibril dafa jaar ak moom ci sam-sam defal ko fa la phase spirituelle ci ndoxum sam-sam mu ne suural amini mahal amini fawqal amini allahu akbar ñetti amini benn bokkul ci sa morom suural amini mooy yant bi mahal amini mooy jibril fawqal amini mooy alburaax alburaax nag yàgg na na lool ndax jibril ba ko suñ borom waxee joxe ndigal ne ko demal ci àjjana nga jël alburaax mu rañaan bi sallallahu alayhi wa jibril ba mu demee dafa fekk ñeent fukki junniy alburaax ñoom ñëpp ña ngay for ci sarde ajjana ya ñoom ñëpp ña bind seen jëye turu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mu gis fa benn fas woo xam ne moom mu nga sëgg bokkul ci fas yay for di jooy ronkoñ yaa ngay tuuru Jibril na ko waa yow lu xew mu ne ko man dama dégg turu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu baax léegi man dañ ñeent fukki junni at ba ma ko déggee rek tur wi dugg sama biir xol ma sopp ko ba mënuma koo muñ moo waral may jooy jibril tànn jibril tànn alburax boobu moo tax surul amini maal amini fawqal amini nag mooy alburax fawqal amini lil asfiyaa yi nag ñu jëm nag baytul maqdis fa nga xam ne fa lañ fekk yonante yi al asfiyaa foofu mooy yonante yi bàgg ci maxat dalaala abdal jalaala abdal jamaala li at xiyaay xat xaddamoohu iswaajahoohu waxtaramoohu sawi na xaay wa saada fihim wa baana anhum wa anhum badarti xaay loolu yëpp mooy nag ba mu fekkee yonent yi nam jiite yonent bi sa yonent yi alayhim wasalaam ñoom ñëpp ne ci ginnaawam kenn ku ne di ko warmaal kenn ku ne di bëgg ci feeñ gi nga xam ne feeñ na suñ borom yoon yoon na ko loolu lañ ciy tënk rek xasiida ak mawhiba bu dee ci xasiida ak jës bu ma ngi ko tàmbalee ci salli ala saarin sama fawqal buraaxi li sama muhammadin wa karima bi hisbihi wa salimi yàlla yàlla nga julli ci aji joo xam ni ma nga rañaan jëm asamaan fawqal buraaxi na mi ngi ci kaw al buraax li sama jëm asamaan xat baata yàqdi xutti baax fi lay di xaasi faax fanaan na di xotti asamaan yi ci guddi gi wal anbiya bi tifaax nag laa xaxu bi takkara bi mboolem yonent yi ci dëppoo ñoom ñëpp ñu dajeeg moom nag ànd ak nag bi takkaru bi di ko teral waxtaramu ña ngi koy wormaal wa xaddamu ña ngi koy jiital wa karramu ña ngi koy teral wa moo ñoom ñëpp jébul nañ ci moom tawaadu xan ngir toroxlu waxan samoo nag li xadri muslim ñoom ñëpp màggal nañ euh, personnalité yonent boobu nga xam ne dañ ko wormaal tawaadahu is arafu rutbatahu wa sarafo li xa liqaahu waxtarafoo bil li wa taqadumi loolu yëpp sëñ bi di ko melal ci al israa wal mihraaj euh, ay xasidaam waaye ba tey yemul foofu euh, sëñ bi nag xam nga mbindam dafa xaw a doy waar danaa koy faral di wax sëñ bi dañoo war a liir yëpp mbindam parce que sëñ bi wuute gi borom xam-xam yi di wuute léegi léegi sëñ bi da ciy dugg moom xam nga sax. kasu rajab sax rajaan bi ndax ci ña guddi ñaar fukki jur ak juróomi ñaar ci rajab la amoon sax borom xam-xam yi wuti nañ ci am na ñu wax leneen sëñ Tuubaa ne indi na ñaari version yëpp am na fu mu wax ne kasu rajab mm, rajaan bi mi ngi amee ci kasu rajab ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weer rajab waaye tamit am na leen lu mu wax lool loolu nañ ko bàyyi xel am na xasiida gu tàmbale ci alhamdulillahi alladi xat artala rasuluna muhammadin rasuluna muhammadan wa bajala wa huwa alladi asra bihi ila tibaaxi fii laylatil isnayni yabun alal buraaxi wa jaalal mawlida fiiha wa jaala xijratahu fiiha wa naala ma amala yàlla ak cant ñeen la yàlla mi nga xam ne mooy yónni sunu Seydina Muhammad te tamit mooy ki ko reñaanee si ñu ne ah mu ne guddi altine moo ko reñaane guddi altine fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñaar la wax ilati baax jëma ko ci asamaan nag xalal buraax yi nag alburaax la yéegoon mu leeral nag ci biir wu ci topp nag fukki fan yi ak ñaar lan la mu ne wa jaxalal mawludi fiha fukki fan ak ñaar yooyu ci la yent bi gud gan àddina wa jaxala xijratoo fiha fukki fan ak ñaar yooyu ci la bi rañaan ci la yent bi gàddaay kon fukki fan ak ñaar mooy fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm lii wax sëñ Tuubaa ak xasida la goo xam ni boo demee ci diwaanu mu xayyada bi xayri ayatul quran tañ mun ko ci daal kaamil da koo fekk ba tey sax waxaat na ko ci geneen xasida goo xam ne moom itam moo tàmbale ci alhamdulilahi si xat arsalna rasuluna muhammadin wa bajjala xata bihi asra ila tibaaxi fii yabil isnayni xalal buraaxi xam nga fee fii yabil isnayni yabuna xalal buraaxi la la waxoon fii mu ne fii yabil isnayni alal buraaxi wa jaala al mawlida fiiha wa jaala hijratuhu fiiha wa naala ma amala sant ñeel na yàlla mi yónni Seydina Muhammad te màggal ko bari ñaane uh, mu jëm ci asamaan si war ci kaw alburaax ci fukki fan ak ñaar di altine moo def it jit yonte bi di ak ñaar di altine moo def gàddaay yonte bi di fukki fan ak ñaar di al di altine kon sëñ bi indi na ñaari version yëpp indi na version bi wax ne kasu rajab la ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab ci la gàddaay bi amee waaye fii tamit indi na fi tamit ne fukki fan ak ñaar di guddi altine ci weeru gàmmu moom itam rajaan bi amee na ci waaye taxul sëñ bi yam foofu sëñ bi daan na ci boo demee ci mimi ya da ko fekkaat sëñ bi am lu mu ci wàllu riñaan ba wa huwa al kalimu allati asra al ilahu bihi ila samawaati laylan jaaliman jaaliyan sulama yonte bi sallallahu alayhi wa mooy kii yàlla waxanteeg moom te riñaanee ko jëme ko ci asmaan ci guddi nag muy wuñu nag lëndëm xat baata yasri wa jibrilu sara mahawo fawqal buraaxi lima anil wara imbahama mi ngi fanaan di dox jibril ànd ak moom di dox ci kaw alburaax jëm ci la nga xam ne ump na mbindee fi sara yu laaxi jami rusuli saa bu sëri wal anbiya la dal axyaari muxtarama loolu mooy bi mu ñëwee ci baytil maxdas ba jiiti fa yonte yi loolu lay misaal foofu kullan bi tarxibihi laaxaa wa faraxoo kullan bi tabjilihi tabjila man xasama ñëpp di wane seen mbégte di ko ndokkeel di ko màggal mu ne fa xaasa maa xaasa min sirun min sirun yaxussu bihi wa laysa yuxsaa bihi xalqun xawaa xasama gàddaay boobu mu am ca nag mbóot moo xam ne moom rek moo ko jogoo keneen doo ko dootu ko am ci mbindéef fi ak lu màgg-màgg wa aaba fi leyli xablal fajri munsarifan li ahlihi saaxibaatin minhu muxtasima dil suwaat nag lu njëkk fajar kon gis nga sëñ bi li mu wax ci wàllu al isra wal miraaj bari na mm, tey da ci indaale werante yi ci am sax da ko ci indiwaale wax naa ko léegi asra bi di gis mi jëxëra bi leftira yi kon al isra wal mihraj mi nga noonu sëñ bi bàyyi na ko xel lu baree bare ci mbindam am na xasiida sax yu mu tënki ahmad al musra bihi ahmad mooy ki nga xam ne moom la ñu reñaane xëy na bu ñu agsi ci xasa xasaid rajabiya danañ gën a jàll foofu gën a leeral foofu tamit xasiida yi mu tënki kaso rajab di wane ne ci la reñaan mi amee kon sëñ Saliou loolu la ñu tënk rek foofu euh, jërëjëf Cheikh Mouhamadul Basir ci yi nga xam ne sedd na xol lool te kenn ku nekk itam gis ci lu leer nañ ñi te wér te bàyyi ko ci lu mbindum Serigne Touba radiyallahu anhu kon nga xam ne bu ñu seetee kon ni ko waxee rek sëñ bi bàyyi woon na xel lool al Isra wal Mi'raj lii dañ ko coqatee ci mbindum sëriñ bi waaye des na yeneen ak yeneen yoo xam ne sax xañ na euh, sëñ bi leer na ci al Isra lépp ngir bañ a bañ rek kon jërëjëf sëñ Mouhamadou Bassir ci tontu yu am solo yi nga xam ni képp kuy topp jotaay wi dana ci fekk. lu sedd xolam kon laaj bi ci topp rek mooy boroom xam-xam yi wuute gu ñu wuute woon ci ndax yonent bi salaa salaam gis na jëmmi suñu borom gi subhaana wa taala ci riñaan gi ah, loolu sax xaj duggoon nga ci waxoon ci lu bare bari waaye boo ñu mënee defal ab ab tënk rek bu noppee dugg ci Cheikh Mamadou Fadal ak Kazu jërëjëf ci laaj boobu hmm, loolu wuute bu rëy la eh, ci monde islamique ci borom xam-xam yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na boromam. wala déet mag ñi wut nañ ci loolu ku mel ne Aysa moom da koo dingat hmm, wax ne hmm, ku ne yonent bi gis na borom moom wax nga lu amul man xaddasa anna muhammad raa rabbahu faqad kasaba la wax de hmm, daal di jàng laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar wa huwa latiiful li ma wax ni addis la boo xam ne muttafaqun alayhi la Buxaari nettali na ko Muslim nettali na ko addis eh, Aysa dingat loolu am na mbooloo mu tamit mu bari mu ànd ak ASC ci wax jooju yent bi gisul boromam mooy li gën a siiw ci wax Ibnu masot ak jël nañ ci lu mel noonu tamit ci Abi Hurayra mu ne yent bi gisul boromam Jibril la gis ehm, yent bi gisul boromam am na borom xam-xam yu ko jëngat lool tere tamit ne kenn du gis suñ boroom ci àdduna mbooloo moo xam ne mi ngi bokk ci muhaddisiin ak mu mustaf ak fuqaha ak mutakallimin ñoom dañoo wax loolu dañoo wax ne Muhammad gisul boromam kenn du gis boromam ci àddina loolu mooy benn version bi waaye beneen version bi ibnu Abbas moom dana yonent bi gis na boromam bi aynayhi ci ñaari gëtam yii loolu moom moom itam hadiis la boo xam ne da ko fekk ci Sahih Muslim ba tey jël nañ ci xataa euh, mu ne ibnu Abbas nee na yonent bi gis na boromam waaye ci xolom gëtt xolam yi la ko gisee ñu jëlee ci abi aliya mu ne moom itam ibnu Abbas nee na raahu bi faadihi ni yonent bi gis na euh, boromam ci bëtti xolom yi ñaari yoon ala kulli xaal daal kon werante am na ci euh, ku ñu wax ibnu Isaaq nee na euh, ibnu Omar boroom xam-xam mag boobu abdullah ibnu Omar dafa yónne ci ibnu Abbas di ko laaj naan ndax yant bi sallallahu gis na boroomam abdullah ibnu Abbas tontu ko ne ko naam Muhammad gis na boromam kon li gën a siiw foofu it mooy Seydina Muhammad gis na boromam bi aynayhi ci ñaari bëtam yooyu daana wax sax sax daa daana ñett la jële ci ibnu abdullah ibnu abbas mu ne yàlla dafa jagleel Moussa mu waxanteek moom jagleel jagleel ibrahima laa muy xarit bi yàlla mu jagleel muhammad nag moom mu gis boromam daana ci teg lii maa kasabal fu aadu maara o maara kon gis nga mm, kon borom xam-xam yi wute nañ ci ne yant bi gis na boromam ñii ne yonte bi gisul boroom xaalis rek ñu mu àndal loolu la ñu wax abdullah ibnu xabaas nag li ñu wax mooy gis na boroom waaye nag dafa am solo lool ñun ñu sañ sëñ Tuubaa werent ñu am ci xalaat sëñ Tuubaa boo demee ci diwaanu almajmuwa al mustamil al mustaminatu xalaa aj baari ajwér si xadim wasaaya wa fataa da ko fekk sëñ Tuubaa wax ne Muhammad sallallahu alayhi gis na boroomam keroog ba mu rajaanee nii la ko waxee dane wa anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam asra bihi laylan min masjidi makkata ilal baytil maqdis téere boobu sax sëñ bi da ciy jàngale wàllu fiq astaghfirullah la ciy jàngale wàllu tawhid mu ne yont bi da ngaa war a gëm ne yont bi dañ ko rañaane guddi mu jógee makka dem baytil maqdis suma xarija bihi ila samawaati ila haysu sa allah sun borom yéege ko mu dem ci asamaan si ba àgg fa soob sun borom wa an wa raa rabbahu bi aynihi bi aynayhi gis na boromam ci ñaari bëtam yi kon daa wax ne daa mel ne sëñ Tuubaa moom la Abdullah ibn Abbas wax ci laan na mu ne waaye nag laa karahiyatil maxluqaat gis gëm gis boroomam bokkut ak gis bi mi fi di gisee bal ala wajhin ala wajhin ya'lamuhu llahu taala loolu nag mi ngi amee ci anam goo xam ne suñ borom rek moo ko xam waaye mu teg ci lu am solo nag te waxee sëñ Tuubaa la wala yaraahu wala yaraaxu xayruhu wala yaraaxu ahadun fi dunya xayruhu da caa teg ne Seydina Muhammad rek moom moo gis ñaari bëtam yii sun boroom gis goo xam ne suñ boroom moo ko xam waaye keneen ku moom nag doo ko gisaat ci ci àdduna alaaxiraa nag ñi gëm te texe dañ ko gis kon lii mooy gis gis ko Sëñ ak xalaatu sëñ Tuubaa Seydina Mohamed gis na yàlla ci ñaari bëtam yi fii ci àddina kuru moom nag doo ko gisaat kon mbokk yi ku ngeen fi gis mu di ko woote ne gis na suñu borom xam leen loolu moom la engagé waaye engagé wu sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa lii la wax te ku dem ci diwaan bi ma wax da nga ko fekk. Euh, jërëjëf sëriñ bi jërëjëf Cheikh Ahmadou Bassir ci tontu yu matale yooyu yu am solo yooyu ñu ngi sant bu baax wax dëgg yàlla euh, gis nañ ci lu kawe njort lool ci euh, yi ngay teg tegtaloo ci mbindum sëriñ bi te lépp génn ko. kon euh, laaj bi ñu tëj rek muy laaju euh, tomb mujj bi muy Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne ku ni weer rajab xel yëpp dem ci moom ku ni kazu rajab itam weer xere yi xel yëpp dem ci moom ndax ci ñaar fan juróom-ñaar yi muy kazu rajab ci la feeñ ci jamono ba noppi itam Serigne tubaa dalee taala anhu duppee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon euh, tomb mujj bi rek mooy Cheikh Mamadou Fadal ak kazu rajab rajab dafa lënkaloo ak Cheikh Mouhamadul Fadil ak gane addinaam ba munoo wax Kazu Rajab te doo wax euh, gane si addina ak Cheikh Mouhamadul ndax moom la yàlla jox tawféex yi ak sens yi mu gane àddina ci guddi googu moom sax daana ko wax euh, ci waxam yu xorom yooyu te xikma danaan wax ne yont bi dana lay mën a cëpp mooy yont bi dana lay kon guddi googu la yont bi jóge suuf jëm asamaan moom mu jugee asamaan jëm si suuf moo tax dana lay mën a cëpp xar baax yu bari nag am na ci gis ba mu feeñee ci guddi kasu rajab googu dafa xëy suba nàmp defu ko ba timis jot mu soog a seex weeru ndeyam ñu xam ne kon dafa dikkaale accord loolu nag karaama ci wàllu yi keroog rasulullahi sallallahu alayhi wa na daaru salaam ngir gane àdduna Cheikh Mouhamadou Fadil gis nga kasu rajab dafa lënkaloog julli Cheikh Mouhamadou Fadil moom itam ni mu fonke woon julli nga xam ne daana julli ci bis juróom fukki julli nga xam ne bu defee farata yi ba noppi juróom fukki rakka bu defee farata ba noppi day defaale ay naafil ba mat juróom fukki rakka ni ko sunu borom joxewoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye gis nga jumaa ji tamit ca loxo la àggee waaw bu fàttali kaxtalaa nga xam ne jumaa ji e, ci moom la la àggee loolu yëpp dafay delluwaat ci julli mu doonoon ko daan soññee ci julli moom Cheikh Mahamadou Fadil ni nga xam ne baayam daana ko e, def ci bare bare dundam yëpp nag da ko jeexal moom Cheikh Mouhamadul Fadil ci liggéeyal lislaam liggéeyal yoonu murit ay milliards wala ay millions ci jamonoom daan jaar ci loxoom mu dëkk ci baraag wala ci nekku ñax loolu jëf ju rëy la jëf ju am euh, solo la doon doomi Sëñ Tuubaa joo xam ne dafa jaay ak njureelem jëndee ko ak taalibe donte Cheikh Abdoulaye wax na ne doom ju jëf nga loolu waaye nag moom yàlla da ko may tawféexi loola mu jëf ko ba noppi bind ko bixtu bu nu wati bil iraada kon doom sëñ Tuubaa ju ne def nga ko waaye nag moom yàlla may ne ko tawféexi mu def ko bind ko yaa ayyuha na fi murtajaa ci la tàmbale ñu bari nag dañoo yaakaar ne bi sëñ bi bi leen sëñ bi wooyee Ceyeen Jolof moom sëñ Mouhamadou Moustapha cheikh euh, sàmba sëñ ma roqe bu sa wax leen li fi man mbokk du ko maye duma bàyyi kenn cheikh fàllu ak sëñ Moussa génn duma duma mag kenn sëñ sàmba génn du duma nijaayu kenn sëñ ma roqe bu sa génn li fi man nag la koy maye mooy jébbalu ñu fëtti ko jébbalu ko jébbalu ñoom ñëpp te nag mbokk yi booba fekkoon nañu jàng alxaan ba mokkal ko jàng xam-xam ba mokkal ko kon nag njëbbal la beneen mbir la mooy maye li ne fi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa daa wax ne fii ku fi ñëw loo fi mën a jëlee te jëlee woo fi taalibe gi jëlee woo fi dara ku fi jëlee taalibe gi nag bàyyi woo fi dara moom nag ba mu demee njaareem nag la bind bay yooyu jox ko sëñ Tuubaa danañ ko faral di nettali nag waaye la ko sëñ Tuubaa di nettali nag la ko sëñ Tuubaa tontu nag moo jar wax fala taalamu nafsun maa uxfiya lahum min xuratin ayunin jazaan bimaa kaanu yaxmaluun xamal ko ne ko loolee nga def jaay sa jureel jëndee ko taalibe da ci am lu sa xol muy fay guñ la fayee ci li nga jëf kon Sëñ Tuubaa bég na ci loolu Cheikh Mahamadou Fadil daal euh, mu ngi noonu daana wax ne man daal du ma doom ñu bëgg a doon baayam du ma taalibe ba bëgg a keex man daal li ma bëgg mooy bu ñu tuddee Sëñ Tuubaa rek ma ne seex ci biir Sëñ Tuubaa say ci moom moo tax Sëñ Fallou ay dimension la man nañ koy jàngat ci Sëñ Fallou doomi Sëñ Tuubaa waxin la Sëñ Fallou que muridu Cheikh al Khadim Cheikh Mouhamadou Fadil que Cheikh lu ci ne ay dimension la parce que nit yàlla ñi am ay dimension kooku mooy Cheikh Mouhamadou euh, Fadil nit nitug jikko dafa am lu ma frappé ci moom mooy dafa doon ko xam daawul tas yaakaar te loolu lu am solo la ku ñuy wax Baye Cheikh Gueye Travaux yàlla na yàlla yokk aw fanam mi ngi fi taalibe sëñ Soxaybu la bu sëñ Soxaybu fankoon sëriñ Soxaybu ak mu jëm jullit it Korite Tabaski yëre bi muy sol su noppee moom la koy jox moom a nettali ne sëñ Fall dafa amoon compte ci banque bi nekk Njaareem waaye compte bi nag léeg-léeg gaa yi sant Sillaak jaxateeg yooyu léeg-léeg kenn indi seeg rek ne sëñ Fallou nee na ñu jox ko nangam ba mujj gi compte bi jeex sëñ Fallou sax amee fa ay bor ndax danañ ñëw laaj ñu jox leen ngir ormaal ko waaye mujj gi mu amee fa ay bor. bis benn waay indi benn waay ju mel ne basture bala maa tooñ ñu sant jaxateeg si la ak ñu sant siise indi ab sec war a retiré xaalis ne sëñ Fallou moom a yónni dañoo war a jël xaalis directeur banque bi daal ne daal tey daal lii danaa ko vérifier ne ko demal ba 4 nga ñëw boo ñëwee ma jox la directeur banque bi midi rek pile mu wàcc rek jubal si Touba indi carte d'identité waaja ak sec bi ne ko sëñ Fallou kat compte bi nga amoon ci banque bi kat. léeg rek ñaari fan ñett rek am ku ñëw ne nañ ko jox nangam yaa ko yónnee indi indi sekk ba sax xaalis ba nga fa amoon dafa jeex ba nga amee fa bor tey nag kii indi sekk bii nag ma ne daal naa ko indi ci yow leeral ko ba xam sëñ Fall xool ko ne ko ay la yoon yónni wu ma ko de ay la yoon yónni wu ma ko de yónni wu ma ko de yëgu ko de waaye nag bu 4 heures jotee bu ñëwee na ko jox bul tas yaakaaram ndax ne woon ko demal ba 4 def na ci yaakaaram tedd ngay jikko fa la yem loolu rek dafay junj ne Cheikh Mouhamadou Fadil boroom jikko ju rafet la woon jikkoy alxuraan la la yoroon daawul tas jenn yaakaar waaye fi ma bëgg a daanelee foofu rek mooy sëñ Tuubaa da koo jox dénkaane bu am solo dénkaane bu riis bu valeur te malheureusement dañ koy tudd bariwul. boo demee ci xikk ma maj ma xam boobu ma la waxoon da ko fekk sëñ Tuubaa daf ko wax ne ko bismillaahi rahmaani rahiim ama baxdu falaa yaxrurka yaa bunayya xiilu naas yaa sayyidina wa ibnu sayyidina gis nga baatu bunayya boobu sëñ Tuubaa jëfandikoo foofu gis nga bunayya koo sopp am cofeel ci moom nga koy wax dana ko yow sama doom ji nit ñi wax gi ñu lay wax naan yow sàng bi doomu sàng bi boom la war de baatu bu nëy bi daf ma ñor lool ndax boo dee ci alxaan foo ko fekk rek ku am cofeel nga koy wax ci moom mu ne ko wax gi ñuy wax sàng bi doomu sàng bi ba mu la nax de ba la war de ba la jay de teg ci lu am solo ne ko fa inna afdala siyaadati maktasabtaha li nafsika laa maktasabataha laka abaun wa juddudun ne ko nag càng càng gi càng cang gi bi ci dàq mooy gi nga ñàqal sa bopp gi nga fàggal sa bopp du ak càng goo xam da ko doon ne ci ay baay ak i maam am solo nga ko akbar ne ko wa faqra fi l wal aqwaali laa fi l wal aqwaali nee nag booy dee boo dee puukarante di ndamu daal del ndamu ci say jëf ju baax ak say wax ju baax waaye bul ndamu ci ay baay ak i nijaay am nijaay yu baax walla am baay yu baax bul ndamoo ci loolu daal del ndamu daal ci yow say wax ak say jëf allahu akbar wax ju am solo la daal ne ko wa in sarafa fi lximami al laa fir mil baaliya tedd nga daal ak noblesse mu ngi ci yitte kawe waaye nag du ci ay maam yoo xam ni du ci ay yax ay yax yu ràpp da ko bëgg wax nag maam yoo xam ne faat nañ bu yàgg jëf lañ jëfoon yow nga ñëw di naboo loolu te yow nga am yitte ju kawe ba fexe am la maam yi amoon yow itam bu say sët ñëwee mën a naboo ci yow loolu loolu la ko bëgg a wax daan ne ko ndax nag juddu bu rafet nag dafa laaj nag jikko ju rafet ndax juddu bu rafet bu ñu ko dee wax jikko ju rafet jee tax nag boo jikko ju rafetul nag judd bu rafet amul njariñ daan ne ko li an sarafa axraafin yaxtaaju ila sarafil axlaaqi mu ne ko loolu moo tax ñu ne laa xam da liman sarafa nasabuhu wa saxata adabuhu mu ne nag ku am judd bu rafet ba noppi ñaaw ay teggin nag wax dëgg yàlla kenn du la sant de kenn du la gërëm kon buñ dee wax judd bi jikko ji la wax ko wax ju am solo ne ko na nga nekk xisaamiyan bi saadi bul nekk xitaamiyan allahu akbar ne ko daal da fexe bay ndamoo say jëf yow te bañ a ndamoo naka ah, say maam xisaam dafa amoon wax ju ma waxoon gàttaay guddaay waxtu gàttaay waxtu bi moo tax dama koy tënk rek dafa waxoon daal isaam mii daal man xisaam mi daal tedd nga jëmaam maa ko ñàkk ba jafe ko ba am ko taraanga ji ba tax ñëpp xam ma mu ne ko nag kon na mel ni xisaab moom te bañ a bokk ñi ñi ñi ñi ndamoo nag seeni maam daal di wax ne hmm, askan wu baax du mooy jariñ nit ki lu dul moom it daa ñafe fàggu ba am lu baax ne ko nag am na waa ji wax ne bul wikk bul bul bul bul sukkandiku lu dul si jëf sa jëf bul sukkandiku ci jëfi keneen sukkandikul ci sa jëf bul yaakaar nag tedd nga nag dañ koy doon ni ñuy doon xaalis déedéet nee na ku sang daal yaa war a jëf ba tax nga sang dont nag am nga ay baay yu baax rafet rafet juddu ci ndey ak ci baay daal di koy jox misaal nag daal ne garab guy meññ bu fi nekkoon am bànqaas boo xam dafa dee moom meññul nee na gaa yi jël ko def ko ci taal bi rek xàmmee ko koyit boo amee judd bu rafet ba noppee te rafetoo jukko it gaa yi la fa rek dem ci ñu am judd bu rafet te euh, euh, rafet jukko lii la sëñ Tuubaa dénkoon Cheikh Mouhamadou Fadil te na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha am na dénkaane boo xam dénk na ko Cheikh Massamba buñ deetee waxtaanee wala ñu fàttali ko ñii nañuy fàttali dénkaane yooyu ndax damaa jàpp dénkaane yooyu ñoom moomuñu ko woon ñun ñëw seen ginnaaw ñoo ko moom ñëw seen ginnaaw ñoo ko moo tax sëñ Fallou dénkaane bi def koo déggoon Cheikh Mahamadou Fadil aka dénkoon dénkaane wi di ko waxam ji doomi diw diw mbaa rakka rek kon sa xel doon diw doomi diw boo doon diw rek boo mel ni sa baay rek di rakkal kon Cheikh Mahamadou Fadil mi ngi noonu nit ku ku am maana nit ko xam ne yàlla da ko bëgg nit ku yàlla bëgg la boo demee ci xadis boo xam ni mu ngi ci saxiixu muslim nekk ci saxiixu buxaari yi muy xadisul muttafaq alayhi yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne sun boroom su bëggee nit danaa ni yàlla day woo jibil ba mu ñëw ne ko damaa bëgg diw bëgg ko jibil daal di koy bëgg mu jox ko ndigal mu yéene ci asamaan si ne yàlla daa bëgg diw yéen waa asamaan bëgg leen ko waa asamaan si ñëpp maa sa bëgg ko mu ne wa yoo doxaluhu alxaboon nag fil arde ñu soo ko defal nag ak cofeel nag ci kaw suuf kon Cheikh Mouhamadou Fadil li ko nit ñi bëggee mooy wan ne yàlla bëgg na ko te loolu Omar ibn Omar ibn Abdul Aziz mas naa ñëw Arafa bisub aj nit ñëpp jug taxaw di ko xool am benn waay ju ne Omar ibn Aziz mii de suñu borom da ko bëgg moo tax nit ñi bëgg ko kon loolu rek laay wax ci Cheikh Mouhamadou Fadil mi ngi noonu nit ku jikko la woon nit ku baax la woon nit ku bëggoon Sëñ Tuubaa la xool li mu wax saf ko dumuuxi li xubbil xadimi faddan araaxu sotti ay rankoñ ngir bëgg Sëñ Tuubaa man Sëñ Fàllu farata laa ko def ak fu bare bari wax na ko fa nee na sopp gi ma sopp sëñ Tuubaa tax na mu fàtte mboolem mu dee fi laa sakk jëmee war a ansaan yi amul sikk sàkkaane ci bëgg gi ma bëgg sëñ Tuubaa fàttali ma mu dee fi yëpp kon Cheikh Mouhamadou Fadil mi ngi noonu kon euh, ku tudd Kazu Rajab euh, tudd ko sëñ Saliou. jërëjëf Cheikh Mouhamadou Bassir bég nañ lool ci noonu nga duggee ci Cheikh Mouhamadou Fadil ak Kazu Rajab leeral ci ñoom ñaar niñ jàppaloo. Euh, nga xam ni Kazu Rajab ni ci yonent bi di ñaanee noonu la ci sëriñ bi sëriñ Fallou feeñee noonu la ci noonu la ci sëriñ Fallou feeñee ba noppi itam ni nga leer la ci sëriñ ci jikko ay jikkoom yum làmboo muy makaarimul axlaaq ni nga xam ne moom daa feeñ ci weeru yonent bi di ñaanee ba noppi ñoo bëgg ko duppe duppee ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daana wax naan Aïssa daana wax naan kaana axlaaquhul quraanu kon Sëriñ Fallu it daanaka li ñu fi wax nii day mel ni loolu rek mooy delluwaat ci moom ay jukkum yëpp jukki alxuraan la muy lawet mbaax am njariñ ba noppi itam amoon ah, ba noppi amoon xekma lool amoon amoon xekma lool te safoon xorom lool ba noppi dañ daana wax naan min kum min kum min kum min kum min kum ma yëru dunyaa min kum yëru aaxira naan nit ñi ñaar lañ ko ko àdduna tax a jug ak ko àllaaxira tax a jug daan juñu ñaari min kum yooyu ci alxuraan bi nga xam ne moom la ko Serigne Touba dénkoon leeral leeral nga ko ba mu leer nañ ñi nga xam ni kon ni nga ko waxee dénkaan yooyu bi ko sëriñ bi di def daanaka ñi ci gannaawam ñun ñi ci gannaawam moo taxoon ñu di ko def waaye wut sëñ Fallou moom def na ko def diraas na ko ba jëfe ko ba tax na mu ci doon wax wax waxam yooyu naan doomi diw moom rakkal rek kon nga xam ne kon kookoy Cheikh Mouhamadul Mouhamadul Fadal ak ni mu bëggee woon sëriñ Touba nga xam ni xasidam yooyu mu def yëpp mu ngi ko ci waxe xasida googu muy mat laa ba naan yaa raa iman misla sayqi fa falasta taraahu Euh, nga xam ne loolu wax ju rëy la muy yow miy wër ku mel ni sama sëriñ muy sëriñ Touba xam nga euh, kon li suñ li leen suñ Touba waxoon moo suñ ma roqee bu so ak sëñ ma sàmba loolu sax boo gisee baat bi jëfandikoo loolu firnal na ko muy euh, maanaam aw aw ma doom aw ma du du ma kenn du ma nijaayi kenn du ma magu kenn ma sàmba génn sëñ sëñ ma roqee bu so génn sëñ Fallou sëñ Moussa génn nga xam ne fi ne bi muy bi muy jëfandikoo bi muy wax suñ Fallou daanaka loolu feeñ na ci yaa raa iman mis la soy xii la wax daaw ko wax mukk mukk mukk maanaam euh, de turu waajur waaye ab sëriñ ak sang la jàppe woon la jàppe woon sëriñ Tuubaa ngir li sëriñ bi waxoon ci waxam jooju kon euh, jotaay bi ndeysaan am na solo lool sëñ Mouhamadou Bassir ñu ngi sant bu baax ci ni nga leerale mboolem tomb yi fi jaar yëpp di ñaan suñ borom euh, yàggal sa taxawaay ak li ngay liggéey li nga fas yéene liggéey sëriñ Tuubaa ci yoon yi nga àggale ko gën nga reftaanam ci ci tasaare ñàngalem sëriñ bi ak wattu ndonal mag ñu baax ñi ci barkeb Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon di euh, di wax rek kàddu yi ngay tëjee incha allah ñu ñu ñu tëj jotaay bi di di am mbégte lool itam bu xam naa waxtu wee xaw a xat sax waaye kon dañuy guddal ba ba ca kanam a kanam ndax xam naa ne ñi koy ñi bàyyi xel jotaay bi euh, duñ mos sa doyal ci kàddu yi nga yëkkati. kon xam naa kàddu yu mujj rek mooy kàddu cant la ak kàddu yu ngërëm ak kàddu yu ñaan euh, sant la yow mi ñëw ak sa cameraman bi nga àndal. Euh, ak it sant sëñ Koso mi nga xamee ci moom la jaare ndax euh, ku la wax loo ci diine euh, jox na la tuyaaba te ku la jox ci tuyaaba amal nga ko cant ñaan gi nag mooy ñaan ma fàttali ko TV lañ bëgg ak fañ teg seen bët sun borom yomb leen yombal leen ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa di ñaan it Kazu Rajab gii ñu nekk ñu jëm si guddi kooku yàlla may ñu ñu dundal ko ni ko sun borom bëgge te it la suñu wala lañ diggee ca dundal ko ñu am ko te fekk waat ko ay at yu bare bari ci barkeb Cheikhul Xadim wa kullu aamin wa antum bi alfi xayri wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin salaam aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon mbokk yi yéen ñu doon topp jotaay bi ci tomb boobu ñu doon waxtaan ci waajtaayu Kazu Rajab muy al isra wal miraaj ak Cheikh Mamadou Fadil wa Kazu Rajab wa Kazu muy riñaan ñaan yonent bi salaasam riñaanoon ci weer wi ak Cheikh Abdoul Fadal ak ni mu duggee ci weer wi kon di ñaan lépp lu fi jàngal rek doon leer goo xam ne ñëpp danañ ko niitoo ah, di ñaanal Cheikh Sidi Muxtaar yàlla yàggal ko fi te guddal fanam lool moog mboolem njabootu Serigne Touba gi. di ñaanal itam sëñ Abou Madiana Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Abdoul Fadal ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul Fadal di suñuy suñu wëlër yëpp ñu ngi leen di ñaanal sëñ Ahmadou Badawi sëñ Ahmadou Rafaay sëñ Serif mbooleem njabootu sëriñ Fall yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla guddal seenu fan Cheikh Amadou Cheikh Mamadou Amin Baara itam yàlla do euh, koy leer ak ak ca barzaqul Muhammad yi ak mboolem ña jiitu ci njabootu sëriñ Fall gi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Falilu yaaro ci mboolem lawlu yow Falilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géeju ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallu